bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala uh, mbokk jullit yi bu ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli ak salmal si yant bi sallallahu alayhi wa sallam nag mbokk yi ñu ngi war a waxtaane li nga xam ni mooy njëriñ alquran karim rawatina mbokk yi si weer ji nga xam ni si la alquran wàcc yàlla nee na chahru ramadan alladi unzila bihi alquran nee na weeru koor si la li nga xam ne mooy téere yàlla bi wàcc subhaanahu wa taala kon mbokk yi weer bi mooy chahr alquran mooy weeru weeru alquran karim mbokk yi xam ngeen ni bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan maanaam révisé ak jibril alayhi salaam weeru koor daan révisé alquran karim mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrukum man taallama alquran wa allama ki gën ci mooy ki nga xam ni dafa jàng alquran di ko jàngale ki gën ci yéen mooy ki nga xam ni dafa jàng alquran di ko jàngale mbokki yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aqra'u fa innahu yati shafian li ashaabihi nee na ne ngeen jàng alquran karim ndax alquran karim dafay ñëw rammu jaam bi yowmal qiyam <coughs> ma kon mbokk yi alquran dafay jaam dafa dafay rammu daf lay rammu yowmal soo koy jàng di ko jëfe daf lay rammu yowmal qiyam kon na nga ko jàng iqa alquran alquran message la bu ñu yàlla yónnee da nga ko war di jàng te li si li si doy waar mooy alquran lenn meñul ci moom benn téere meñul alquran alxuraan mooy téere ji nga xam ni bépp lettre boo si jàng da ci am fukki tiyaaba man qaraa xarfan min kitaabillah fa lahu xasana walxasana bi ashri amsaliha laa aqul alif laa mim xarf walakin aqul alifun xarf wa laamun xarf wa mimun xarf kooku sul moo ko wax sang bi nee na téere yàlla ji benn xarf boo si jàng da am as fukki tiyaaba wal xasana bi ashri amsaliha benn jëf joo jëf muy tiyaaba du lay fay fukki tiyaaba te loolu mënoo ko am lu dul si alxuraan karim kon nee na soo nee elif laam am nga fanweeri tiyaaba mbokk yi kon nag képp kiy jàng fatiha ñaata tiyaaba la am kon mbokk yi lii amul lu dul si alxuraan karim kon téere yàlla bi du ko war a jàng bañ ko di ko def sunu salon ba muy poussière kenn ko jàng nanu xam téere bi lu di si nekk am na solo ndax mbokk yi quraan leer la bi nga xam ne moo jóge suñu borom subhanahu wa taala waaye li si gën a waar mooy lan mooy alquran xujjatun laka aw alayka alquran daf lay layal yowmal qiyaam su dee da nga koy jàng ko jëfe da lay layal waaye mbokk yi alquran soo ko tegee sa gannaaw doo ko jàng doo ko jëfe dafay nekk lay sa gannaaw sa gannaaw da lay yëbbu safara ndax lan ndax da nga bàyyi da nga bàyyi téere yàlla fii fii insan waxoon ci quran inna qawmi ittaxadu hada alquran mahjura li wax hijr bi quran mooy lan mooy ki nga xam ne jàngoo ko jëfe woo ko xamamaanaa bi yitte ko loolu mooy hijr bi quran mooy gaddaay alquran karim alquran kenn war ko gaddaay ndax alquran si la sa dund yëpp nekk alquran li ngay jaamoo sa borom si la nekk kon mbokk nanu xam ni diine cosaana mooy alquran ak na kon foog téere yàlla ji nga xam ni yàlla yëngu na ko ñu jéem a xam lu si nekk di ko jàng di xam maanaa ba di xam euh, tafsir bi incha allah kooku dafa am solo mbokk yi te loolu amul lenn si lu mu téye alxuraan incha allah kon yàlla na yàlla def euh, min ahl quran euh, wa xaasatuhu ñi nga xam ne ñooy ñi jàng katu quran ñooy ñi nga xam mooy nitu yàlla ya hum ahlullah wa xaasatuhu mooy nitu yàlla jàng ñi nga xam ne ñooy jàng alxuraan incha allah ko yàlla na yàlla boole si ñi nga xam ne maanaam ñooy ahlul quran mooy ñi nga xam ni mooy ñitu yàlla yi nga xam ne yàlla moo leen jagoo si boppam incha allah hum ahlullah wa xaasatuhu wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala